ginnaaw ñu sante yàlla julli ci yeneen di sant suñu ñaari waajur ñu ngi gërëm waa wasaare di gërëm monde entier di gërëm ahlu làmb yëpp comme ni nga ko waxee rek di wax amin ci ñaan bi nga ñaanal waay dawlu di ñaanal waay feebar di ñaanal ñi nekk xamante ni ci ñoo tëdd hôpital ak ñi nekk ci ñi caabi féetee ginnaaw ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a yàlla delloo leen seen sago delloo leen seen njaboot bi jaay Seydina Muhammad si journée la cinq muy ñaari xale Sa ñu gis barki dem Ndiaye seen dernière signature bi coow li bari li fi am. ok man jour dama waroon ñëw sax mais damaa xaw a tardé avant may ñëw laa woote dégg coow li ko waa xëj na toujours li may wax rek mbër yi amuñu problème mais ñi ànd ak mbër yi foo lu yàqu ñoo ko yàqu man chaque jour loolu laay wax waaw lu yàqu ñoo ko yàqu. làmb war na toll foo xamante ni sii tey bu ñu demee ba def signature tey mooy li ma doon wax rek mbër mi ak ménagère am ñoo war a dem. ñu si des dañuy toog xaar parce que gàllaaj boo yor làmb ja lañ ko soxloo mais ñëw làmb di wis di def di suul wane sa bopp la rek man loolu laa gis ay folklore la rek waaw te làmb ji foofu la war a jëm loo koy defar mbër mi day départ ànd ak ménagère am kese tout court point barre ñu koy signé ci contrat yi loolu mooy tax mu nekk. loolu musul am ci contrat yi. non non c'est que dinañ la may benn mais des fois mbër yu mag yi dañu am exception da nga gis mbër mu bi ñëw ànd ñoo xam ne dañ leen xam ñu ay nitu làmb kenn du leen téye ànd ak ay booy. waaye ñëw fa di déconné di yàq ñooñu moom yàq rek la ñuy def. waaw kon di dafa léegi ñu ñu tourné waat affaire bi mbër mi ak ménagère bi kese. mais loolu mooy defar làmb loolu mooy defar làmb tey bañ ko essayé fii ci CNG bi génne arrêté butéel yi nit ñi dugg di def loolu bañ ko arrêté dagg jeexoon na mais dañ ko bàyyi waat nit ñi commencé waat ko di daggaat xaalis yi donc tey ñooñu amuñu fa utilité amuñu fa utilité. parce que boo xoolee li yàq yi fi yàmb li fi yàq yëpp ñoom ñoo koy yàq que ce soit muy signature que ce soit muy muy muy muy muy muy kii muy signature contrat waaw problème bu fa am ñoom ñoo koy indi donc dañ leen war a tere rek benn yoon bu ñu leen teree rek mu jeex. mosoo gis benn ménager bu yàq mu soo gis ménager bu yàq làmb. mos nga gis entraîneur bu yàq làmb. pourtant entraîneur bu defee dara dañ koy sanctionné ménager bu defee dara dañ koy sanctionné mbër bu defee dara dañ koy sanctionné mais koo xamante ne si jour làmb mbër mi la nga koy gis foo koy après ci kaw mbër mi rek lañ koy teg. Sa Thiès Reug Reug. tool yi bari na fi ñu toll nii Sa Thiès mën Reug Reug a mën ñoom ñaar kan moo siy favori at ku nekk ak sa foofu. man li ma jàpp mooy boo nekkee man rek da ko faral. ñaari yaakaaru làmb lañ ñaari xale yi ñaari mbër lañ yoo xamante ni dañoo judd fekk fa ngemb li wàll nuñ ko nekkuñu ay màgg bëre dafa nekk seen deret muy làmb pur et dur. ci ko tëgg di promoteur bu mag muy événement bu mag amateur yëpp di ko xaar monde entier ñëpp di ko xaar raison pour laquelle ñoom lu ñu def rek nii la mën a demee bés bee toll noonu waaw. mu gis ne Sa Thiès ñenn si amateur ne saa bu amee combat fi ko adversaire di yegg mu génn si est-ce que bu ko bu ko fa rëg yeggee. est bu ko fa rëg rek yeggee man gëmuma loolu parce que bëri lay def mayewu ko dañuy bëre ba yegg fa rek te saa dafa mën a bëre ndax chaque fois mu ciy génn mën a bëre la. du chance quoi mérite la saa dafa mën a bëre li ma la wax doo doomu mbër la kenn du nekk saa dafa mën a bëre wala saa mbër la loolu wax ku yàqu la on a disconvient même pas. koo xam ne xàmmeewul jànj ak joor loo ko mooy mu exploité. ñoom ñaar ñëpp dañoo osé am sañ-sañ ci teg alxatiir ku nekk gëm sa bopp muy ñaari boy yu gëm seen bopp ku nekk dangaa jàpp na yaaman te bu ñëwee noonu la ñuy bëre see. si xeex kan non lamb jooju mag man pour ma pronostiquer ay métti trop trop trop ndax ñaari ndaanaan lañ li ma boo ci ne kii man rek wala kii man li da nga ko da ko faral. ci xeex a am ne kii moo fooree xeex bi nii wala kii moo fooree lii. parce que euh, dañoo ñeme ñoom ñaar Reug Reug champion fatlin la kenn weerante wu ko ba pare dem jàngiwaat amélioré waat xeexam dem di def MMA loo xam ne xeex kese la di ci am ay médailles di ci def ay exploits ay États-Unis fu nekk. donc kooku doo xam lu mu lu mu waajee doo xam lu mu waajee. rëg rëg rëg daa mën a bëre mën a xeex dem mu jaral ko mu gedd mbapat bi ko xamee dem amélioré jiwaat ci yokk MMA bi jàngi te MMA jàngi xeex lañ fay def. dugg na géejuwaay maintes fois dafa am ay ndam Sa Thiès dugg na tamit caaro lamsaar bi am fa ay ndam. ba tey mooy li ma la wax rek ñaari ndaanaan ñaari champion la ñaari mbër lañ. fu ñu dugg rek dañ fay def résultat door a génn rax ñu boole leen du hasard. bu jour li ñu gis si siñaatiir bi est-ce que bu jour ba dinañ ko xaar si ñoom ñaar. noonu lay demee nag ñoom ñaar kenn du ci may sa morom dara ndax ñoom ñaar toll noonu. su ma déggee waxu bis bee ni ko toll. bés bee toll noonu après ak ñaar ñi ñu boole ñaar ñi ñu boole ñoo toll noonu. kenn du ci ragal. Sa Thiès li muy def dara du ko dindiloo Reug Reug lu muy def dara du ko ko dindiloo duñ ci changé lenn. te di nga xalaat samp jaaga ñoom xeex. dinañ xeex dinañ bëre dañuy xeex dañuy bëre. ñaari ñu ñeme la. ñaari mbër lañ ba pare li ñuy def calcul calcul yóbbuwu leen fa. loolu ma loolu lañ mën te loolu lañ def ba yegg si fi ñu yegg si du ay mbër yoo xam ne dañuy calculer wala di di di di round d'observation di déedéet bu ñu dañuy dalante bëre xeex jàppante bëre. ku yàlla may ndam xam ne keroog yàlla may ndam mais ndam li Sénégal lay des. Mhm. coow li xaw naa bari de. bu coow lan. sa digganteeg Boy sama digganteeg Boy Niang sama digganteeg Boy Niang ban coow moo ci am. combat bu ñu waxaale juboo joxe avance yi def signature def présentation loolu kenn coow amu ci. jël avance Ama Baldé ñu ne waa dégg nga jël avance waaw. mais situation oblige la. ak euh, li ñu naan l'homme propose Dieu dispose suñu combat ak Ama Baldé taxawoon na ñëpp xam ne mu demee am ay gàllankoor yu fi jaar ay feebar ay ay Covid xam nga ak yeneen ak yeneen donc raison pour laquelle bu ñuy faju ji yàlla dogal Ama tamit yoon may ko mu dem jëli combat xaar am na fu mu àpp yàlla may ko mu dem jëli beneen combat am beneen combat ñu ko ciy ñaanal bu baaxa a baax a baax yàlla rétablir santam xam nga yaakaaru làmbala bon bañ demee ba nga xamante ne ñun tamit yàlla dogal na wër nañ ñu war a bëre ndax Modou moom làmb ko namm Modou moom keroog moom ñëwee wane na mooy làmb waaw wala neexee Modou imam Modou oustaz <laughs> la wax leen mais xam naa ne daal ñun li xam ci moom mooy bu takkee ngeen mu ñëw nit ñi kontaan waaw te lim moom da koy jël. Mhm. Modou dafa mel ni ci carrière am mi ngi soo a bëreeg moroom. Modou waaw. non daan na bëre ak ay ay moromam comme bi muy soog a door bi mu doon soog a door ñi mu doon du bëre ay moromam lañ. ñoom laay bee ñu ko jiitu si lamb. ay eh, Serigne waaw mais Modou ñi muy bëre ñi bëre naa ku daal Modou bëre naa ku ma ne Modou bëre naa ku ne yow tamit. waaw ba tey rek man man damaa nekk au plafond. yow ñiy wër si ngay wax ak ñiy jeex man damaa jeex ba yegg ñu naan mënu ko munu ko du ko doon du ko doon ma dem ba nekk au plafond dem ba téye li ñëpp soxla ku ko ku xalifa ku ku ku mbër kuñ ku ñëw da ngay ñëw ziare si. cooli cooli loolu noonu nag la xale yi bëgg. loolu lañ bëgg mais man mi ko gitangaas ba jël ko ñoom ñu topp di ko raas bokkuñu ba mu ñu yemale. dafay ñëw fas yéene pour xeex ak yow samp jaagati diggante mu loolu loolu loolu moo ma gënal. barki Seydina Muhammad boo ñang fii barki dem boo njaay diggante seetaan naa ko bay ñaas ndaanaan la champion la déedéet barki Seydina Muhammad Modou amul ku muy bëril ma ciy tiit wallaahi lazim mu wér rek Modou moom wér rek laa koy ñaanal barki alxuraan Père Ndiouga ma koy nuyu de passage nee na Modou takk ngeen bëri rek la mën kese barki salaatul fatiha benn la billahi wallahi taala avance diisul ci man yow tamit ma jël fi avance bu Bombardier diisul jël fi avance bu Balla Gris Lac de Guiers mi daan Boy Niang ma jël avance am ñaata yoon. kii xale la kii xale la boo xam ne dafa nekk si yoon. Lac de kenn gënu ko nekk xale Pape Ansou kenn ëpp ko doole kenn gënu ko nekk champion ci làmb tenir naa ko aller retour nga may wax ay Boy Niang. nawlu ak ma kaa jox cër su ma ko nawloo woon du ma ko jël. billaahi su ma ko nawloo woon du ma ko jël muy champion ku lu faat leen. non non du jaar jàll man du ma bëreeg jaar jàll man combat choc laay wër. déggoo li ma la wax yéen toujours da ngeen dul teg image yi Modou doon wax ba su ma doonee roi des arènes damay bëreeg samay morom samay rak soit soi-disant ñi ñu wax ay rakkam lañ tey ngal la ñoo ñooy ay moromam. kon jox na leen cër bàyyi na leen xel du question suuse booy ñaa ku koy suuse mi gëmoo làmb. déedéet. ba tey ñaari avance yi nga am yëpp ah mais ñooñu la ma làmb booleel instant ñoo fépp coow ci booy est-ce que Boy ren la. bu ama ama Balde booy Niang ñoo fi ëpp coow te man maa doon ñaan yàlla bëri ñoom guddi yi ñoo fi nekk ci xale yi génération Modou ñoom ñoo fi nekk ah waaw ñoom ñoo fi ne kon kon du ñu leen sous-estimer sous-estimer pour. est-ce que Boy ren la. ah loolu moom mu ngi des ci loxo yàlla xam nga nit ki dina bëgg mais CNG ñu ngi ciy dox promoteur bi tey kilifa la lim ci war a dox mu ngi koy dox. Ah, parce que tamit day am ay partenaires yu mu ciy liggéeyal donc loolu yëpp noonu la demee ñaan yàlla rek mu sotteeg jàmm. mu ngi bëri boo ñang bëgg bëri Ama Baldé ren tamit. non moom moom ñu ngi koy ñaanal yàlla mu wér remplir contrat am si kàttanu yàlla loolu daal lañ koy ñaanal waaw. booy ñaa ah booy ñaa di ko ñaanal jàmm rek comme ni may ñaanalee Modou Lo jàmm parce papa moo ma yar sama xarit la. Pierre de Gaulle waaw. <laughs> lamb la kii wooguñu siflee guñu nee naa la man takk ngamb dongali fii loolu la gars yi na mu ci man te su ma ko defee ñëpp nangu. <laughs> yàlla baax booy ñaan daal maa ngi koy ñaanal wér di ñaanal Modou Lo wér di ñaanal Ama Balde wér di ñaanal Gris Bordeaux yàlla bu ko dara jot ak képp ku am combat ndax day metti lool ci promoteur yi ñu def seen événement génnee seeni i toog ba fii làmb ji am ay tolof tolof kenn ñaanu ko yàlla du neexul ci amateur neexul ci promoteur neexul ci partenaire neexul ci kenn mais nag yàlla mooy dogal di ñaan yàlla yàlla yóbbuñu si dogal ko rek ba ñu mën koo bëri ci allahuma sal yàlla may ñu ndam roi bi moom génnagul parcelle moom ci kàttanu yàlla non non dèjà ñoom franc ñu ngi ñoom bu ñu paree dañ koy jox ñoom franc ñu téye. loolu moo tax ñun waxuñu la téye couronne bi dañoo préparé relève ñoo xam ne Modou day pare ne leen sama rakk yi am leen téye leen ko parcelle li ko dugal parcelle génne wu ko fa de bi ma koy jël bi ma koy jël dañ ne woon du ko jël matu ko mënu ko du ko doon saar yooyu génne leen ko guddul rëyul dox ñu ne xarañ ñëw na <laughs> borom drapeau yi jiitu xarañ borom drapeau yi voilà booy daan da mu metti ko <laughs> dama ko mën daan ko aller retour ah, déggoo ligum ligum Modou tontu na ko nee ko jooy jooyaat yow Modou nu muy tontoo pare nga bëgg ma questionné di ma tontu loo waat. Ah, ndax su ma ni nga waxee ni si booñ ak dinaa seeti Père Bourkhane. waaw dama seeti Bourkhane Bourkhane sama. Père Bourkhane. Bourkhane maa ngi koy bàyyi ak weeru koor baa ngi ñëw amoo <laughs> jël ko balaa weeru koor yi mënul dara ci koor mu àttanul <laughs> xiif. koor gi laa koy bàyyi koor gi laa koy tiitalee ah. <laughs> waaw. ziar bu baax a baax ñu baal nga tàggatoo. waaye di kontaan di sant ñëpp di gërëm ñëpp di féliciter Abdoulahat Ndiaye di féliciter Bourkhane di féliciter Paala Diop di féliciter ménager yëpp waaw ndax décroché nañ combat bu mag a mag a mag a mag mag a mag waaw muy diggante Blende ak Zambala. as xanaa dafa am boxeur bu nekk ci biir ménager yi. Bourkhane. boxeur la Cheikh moo voilà non mais Abdou Lahad Ndiaye la nag lépp moom la lépp moom la. doon toog lépp moom la te ménager lu nekk dañ koo mérito waaw ci kàttanu yàlla moo tax tamit di remercier ñaari mbër yi di remercier Sëwru Fall di remercier Blende di remercier Dégol di remercier Zambala ndax yombalal nañ ñu ko combat bi waxaale wuñ ko dix minutes te am na ko fi buggoon mu jafe lool. kon duñ def lu dul di leen sant di leen gërëm. waaw incha allahu rab le 21. 21 mars. njarndeem la wallaahi njarndeem la kontaan nañ ci torop torop torop macha allah. waaw jërëjëf maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.